alima doon tey ma woy pàcc ndongolo. maa ngi def. maa fi. tur bi la. Mariam Bassou. Mariam Bassou ñu ngay kii nii. Mhm. tey loo lu war a woon sa teewaay fii nii. Euh, tey. tay lañuy def journée ki def ta yalla tax manam dañuy joxe ndogu jusma yalla tax dal comme ta yalla tax rek la nga ñu ta yalla tax wa dañu ñu ta yalla tax ñu fi nek ñep dañ seen ñew ta yalla tax ya nga def ta yalla tax wa yag nañ ko def après koor gi nga def ta yalla tax après koor gi di nga def ta yalla tax après koor gi wa dañ koy def inshallah parce que si lañu bon lool lañu xam ñun ñu xam lool lañu xam legi yow affaire ba nga ci nekké lan la la def quoi depuis lool lan la la def ba nga nek def ta yalla tax mouvement bi di and ak ñoom bon déjà euh, amna ki di nga xamanté ak nit ñi déjà le fait que ngay jox nit muy lekk rek muy content rek lo déjà lo dara la comprendre nga amna connaissance dañ ci jangité lu bëri aussi tek ci euh nit ki lepp looy def te yàlla te teg si yàlla tek teg si yàlla mu koy defal xaro ci xaliss xalo ci dara ni met sa xara ko ci donc ça fait plaisir quoi ça fait vraiment plaisir depuis lors ça fait 7 ans depuis lors ban changement nga gis man changement laa gis naa amé gis naa amélioration. Mhm. parce que avant toj daal lañ lañ ko doon def. Mhm. léegi ñu ngi koy dem ba pont ba jigi pont. Mhm. léegi saa ñu ngi ridis sama site. am amélioration gis naa nit ñi. ñu ci gën a am motivation. nit ñi ñu gën a ñëw. nit ñi yaakaaroon ne sont juste des choses yoo bala bala yoo xam ne du du jëm gër mais lu dul dëgg du yàgg. sant yàlla alhamdulilah ok kii mooy euh, Bassoum. yow loo nekk sax si def yàlla tax ban kii nga si. donc man maamu simple la. maamu simple nga daal mais dangay jàpp mu dëgg te yàlla tax. Ah, waaw li ma doon tey ma